الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين di dellu di sant yàlla subhaanahu wa taala di ko gërëm di julli ci yonentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di àggale fa ñu tolloon ci kitaabul axlaaqi wal birri wa sila bunt bi wax ci jikko ak mbaax ak jokk ci téere bi dajale ay càllale yu bare bari ci xadiis yi wér ñu nga taxawoon ci xadiisu juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeen tey ñu war tàmbalee ci xadiisu téeméer toog nag jotaayam di wax mbaa ngay déglu ba àgg ci téeméeri xadiis ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam war na jur yiw war na jur barke war na def war na dindi war na juri tuyaaba lu ñu ci mànkeel ci li nu war yàlla nañu ko sunu boroom jéggal baal lu mu ca defal yàlla nañu ko fulal li newul sunu loxo mooy fayam ak ngëneelam ak mbaaxam yal na yàlla subhanahu wa taala sotti ko ci sunu kaw ñu tàmbalee kon tey ci xadiisu téeméer mu de xadiisu Aïcha radiyallahu anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni la aarifu aradaaki wa ridaaki قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لا أهجر إلا اسمك yeneen suñu Aïcha radiyallahu anha mu ne yéen ci Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf maa ne yow Aïcha man mii dey xàmme naa sa kontaan ak sa mer jamono bi ngay gërëm dara di wax ak man nee na xàmme naa ko jamono bi ngay merit sooy wax ak man xàmme naa ko ma ne ko naka nga ko xamee yow mi yàlla yónni nee na mu ne ma innaki ida kunti radiyatan qulti bala wa rabbi muhammad yow soo gërëmee ci sunu diggante dara da naan ahan kay waat ko ci borom muhammad soo kontaanee ci ne waat naa ko ci borom muhammad waaye soo meree da nga naan déedéet waat naa ko ci borom ibrahim nee na déedéet waat naa ko ci borom Ibrahima nee na yaay Aïcha nee na ma ne ko ahankay noonu la demee de waaye man du ma gàddaay lu dul sa tur ma meree daal sa tur bi laa dul tudd moom laay gàddaay turu maam Ibrahima laay tudd waaye yow sa jëmm moom du ko gàddaay yow sa jëmm du ma ko gàddaay ma ne kon ci Yàlla bi sallallahu alayhi ndekete daan na am yu mel nii ci biir këram waaye xool leen dënn bu yaatu ba mu ko nangoo ba mu ko déggee comprendre ko xoolal mu koy wax ak suñu yaay Aïcha radiallahu anha sax ci anamu kaf ci anamu kaf la ko doon waxee lii nga xam ne moom xam na ko ci moom kon mooy royukaay bu mat bi képp ku jóg di ko roy bul fàtte jikko boo ko bàyyee bàyyi nga la ko sunu borom taggee ci alquran question ngi fa nag mooy ah kon ndekete biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg koo gàddaay wala léeg-léeg ñu waaw léeg sax ba merloo ko Umar ibn Xattaab bés wax na ci biir kër gi soxnaam yëkkati ci làmmiñam mu noppiloo ko mu ne ko Omar yow danga maa jaaxal yow yaa ngi nii da ngay bañ jigéen wax ci sa wax te sa doom mu ngi fee kër Yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom léeg-léeg koy tontu ba mu yendoo mere mu ne ko nga ma mu ne ko dañu koy tontu ba ñu yen ba mu yendoo ma mu jógal sol dàll ba mu jóg dem dugg ci néegu su njaay Xafsa ne ko ndax yéen da ngeen di tontonteeg bi sallallahu ba mu yendoo mer mu ne wallahi inna la nuraaji'annahu hatta yadalla yawmahu ghadban waat naa ko ci yàlla ne dañuy ba mu yendu léeg-léeg sax mer Omar ibn ne ko yéenay seen i noonu bopp ne ko Xafsa maa ngi lay dénk bul topp ku tuuti kële suñu yaay Aysa lay wax nga xam ni moom bëgg ji ko yonent bi sallallahu alayhi bëgg da koo nax boo ko toppee yow mii dinañ la fase téye bul ko topp ku bëgg a wax ne yaa mag ku bëgg a wax ne tamit war nga koo bëgg koo wax tamit ne moom la mu am yoo amuloo moom la mu am yoo amuloo ala kullin Amarul Xataab loola defar na ko yar na ndax ñoom yaru yonent bi sallallahu alayhi lañ daan yaroo ba nee nañ bi muy nekk amirul muminin benn waaye bés bu jóge na këram riir yi ñëw di ko bëgg a kalaamee ak soxnaam ndax soxnaam da koo tontu. muy toll ci buntu këru Omar dégg soxnaay Omar di tontu Omar mu dellu dégg soxnaay Omar di tontu mu far dellu su ko defee kon am na loo xam ne dëkkin wi moom moo koy waral ak nekkin wi ak buum bi leen boole moo ko waral kenn mënu ci dara bu la ko keneen waxoon ci biti sañu la ko wax sax ku ko ëpp doole ëpp ko maqaama sax sañu la ko wax te soxna dana la ko wax boobaa jëlal nattukaay bi def ko li ne seen diggante mais boo ko defee yow sa personnalité ak ñeneen ñu ko ëpp maqaama déedéet déedéet liggéey mu ngi kalaamee borom këram ne su mu toll dañ koy respecté dañ koy wet dañ koy yëkkati mu ñëw moom mu koy tontu bu yemu bokk waxoon nañ leen ne fii ne soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na kenn ci ñoom wax yonent bi loo xam ni ku dul ñoom bu ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam murtad waxal te bul wax hmm? dul dëgg maandu dégg ngeen ba ko waa ji ne maandu waxal te bul wax dul dëgg maandu dégg ngeen ba ko waa ji waxee maandu ko waa ji mujj avec ça nga naa ne eh, yow yonent nga ma hada tazamu annaka nabi zaama bu ko arab waxee yaani qaala qawlan xaqan aw baatilan mooy garanti wu ah zaama mooy nga naan eey nee na avec ça nga naan eey yow yonent nga suñu Aysa nee na bi ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa muuñ ree ndax mbaax bu ne ci moom ak yéwén bu ne ci moom xam na ni loolu eggul ci imaanam eggul ci pas-pasam xam na ko ya siddiqa bintu siddiqa waaye lii xew ci diggante borom an ibni abbasin qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahlul jannati man malaa allahu udunayhi min thanaa'i nnaasi xayran wa huwa yasma wa ahlun naari man malaa udunayhi min thanaa'i nnaasi sharran wa huwa yasma xadis bu kéemaane ngi nii boo xam ne moo tax mbir mi yombul dul ci ku ko yàlla yombal la mu waxoon Muaad ibn Jabal yombul de lu dul ci ku ko yàlla yombal ndax bu doon dañu ne jublul ci sa boroom mbindee fii je m'en fous bul faale jublul ci sa boroom kese ñu ne mu yomb wala fexeel daal ba nit ñi gërëm la nit mu yomb ndax li sonal ab jaam ci yoon bi mooy fu mu nekkee diggante ngërëmal yàlla ak nit ñi dafa jaam bu baax foo mu bëgg jàmm foo mu lewet kuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo mu bëgg wesaare yiw ak jàmm ci kaw suuf foo muy bañ ay du bëgg sax ku ko mere ku bëgg yàlla it foo nga di ko wut di dàkk la mu bëgg di moytu lépp loo xam ne moo lay tàqaleeg moom suñu borom nag jël mbir mi def ko ci diggante boobu ittaqillaa xaytu ma kunt sa digganteeg moom waat bi ay a xasanata sayiata tamxoha sa digganteeg sa bopp balaa ngaa alak sa bopp wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan sa digganteeg nit ñi nga koy jox foo kon nga seet noo koy laax laaloo ba mën cee génn lépp fekk yàlla nga ciy wut ndax dalaa woo ci jublu ci moom woola ci jëflanteeg jaam yi xoolal fii li mu wax yonent bi sallallahu nee na nit ñi ñuy dundal de day wax de nee na waa àjjana mooy kooku nga xam ne yàlla dafa feesal ay noppam ci gërëm gi ko nit ñi di gërëm di wax ci moom lu baax fekk mi ngi dund fekk mi ngi koy dégg mi ngi dund di waa safara mooy kooku nga xam ni yàlla dafa feesal ay noppam ci ŋàññ lu ñuy wax ci moom fekk mi ngi dund waaw ndax loolu war du nekk ab yitte kon ndekete ñun dañuy wutee àjjana bokk na ci fexe ñu rafetal suñu tur ci kaw suuf ci seede yàlla yi ci kaw suuf te waroo wut seen gërëm nag ci luy merloo yàlla waaye da ngay doo leen jaamu it yàlla képp ngay jaamu te ñu doon ñoo xam ne léeg-léeg li ci bari da lay juballoo ci yàlla rek moo la di naqare rawatina axiru zaman wallahi te ku la ci gën a xam dara mooy ku la gën a ubbeeku di gën a jéem ci tool boobu toolu suuf xam ne moom ngay jiital ndax boo jubloo ci yàlla yàlla ngay wut boo jubloo ci nit ñi yàlla ngay wut wutuloo nit ñi ndax lii yàlla ci biir nit ñi nekkul ci loxo nit ñi lu ñu lay jox yàlla moo la koy fay waaye nag seede ba nee na mu ngi ci nit ñi bu boobaa di nga suñu borom nag dana la nattu ci diggante boobu ndax boo jeexee ci yàlla mooy sa yitteeg sa jubluwaay ak sa yéene yépp nga jubal ko ci yàlla boroom xam-xam yi nee na nattoo ngi foofu àq doomu aadama ngay ñëw gan day fëgg dëkkandoo da soxla mbooloo mi bëgg laa lifi fekk yaa ngi sa xisb wala yaa ngi sa wird wala yaa sa ñaan wala yaa say naafila wala yaa ci sa loo xam ne moo gën a neex ci sa digganteeg sa borom nee na la fekk ndigal yàlla yi nag sa digganteeg jaam yi taxaw temm te yooyu dafa am farataay temm ak farataay boo xam ne mën naa xaar xisb bi nga war a jàng tey nekkul ne instant bii farata la bi nga war a jàng bi nga toog di ko jàng du nekkul ne farata la ci instant bii même bu dee jàngum alxuraan farata waaye gan gi egsi na nga teral ko ci instant boobu la doon farata ci yow nit ki laaj la ko wuyu digle lu baax tere lu bon yooyu yëpp sa diggante su ko defee boo demee na nga yittewu nit ñi yittewu leen di bëgg a jaamu ci ñoom yàlla da nga teseeg ay ëpp foo xam ne lii jàllale li nga bëgg yow day merloo yàlla day merloo yàlla waaye boo jëlee yàlla nag mooy sa objectif ci bii ak ci bii yàlla moom mooy sa objectif ci nga ciy mën a génn te saa yu la yàlla nattoo bi ci suuf ba nga xëccu jëm ci yàlla ñu xalam la tey bu ëllëgee danañ la gërëm ñu xalab la tey bu ëllëgee dana la gërëm loolu moo ñu ko digg loolu moo ñu ko digg képp koo xam ni gërëm loo na yàlla ci li nit ñi di mer bi xalab yàlla dinañ la gërëm gërëm loo la nit ñi boo defee safaan bi yàlla xalab la xalab loo la nit ñi hmm. xalab loo la nit ñi dëgg boo gis tey ñu koy coow seetlu rek dëgg boo gis tey ñu koy coow di bëgg a taxal borom bu ne mbaa ñu koy manquel mbaa ñu koy nangam nit ñi ñu ngay dee ñu ngay ñu ngay ñu ngay tagg kaca dee nit ñi ñu ngay tagg kaca dee nit ñi ñu ngay tagg kaca dee ko defee fexeel nga dee ci waaye nag nga bàyyi xel lii de lu am solo la firnde la màndarga la ne waa àjjana mooy kooku yàlla feesal ay noppam ci ngërëmal nit ñi ndax nit ñi lu ñu sikki sikki yàlla leen moom ñu sikki sikki sikki yàlla moo fekk mi ngi dund di dégg ñu teel de mbir la waa safara mooy kooku nga xam ne nit ñi yàlla dafa feesal seen ngàññ ak i móolu ak ci biir noppam fekk moom mu ngi dund di dégg yàlla na suñu borom yëkkati suñu tur ci yiw ak mbaax mu daan na wax allahuma arfa dikri te moonu sant dëddu àdduna an said ibn yazid al ansaari anna rajulan qaala ya rasul allah awsini qaala awsika an tastaxi min allah azza wa jal kama tastaxi rajulan min saalixi qawmin said ibn yazid al ansaari nee na benn waaye dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dénk ma mu ne ko maa ngi lay dénk nga rus yàlla mu tëmi kawe comme ni ngay rusee benn waaye ci ñi baax ci sa waa kër sa waa kër ak sa ñoñ ña ca baax ni ngi leen rusee ruseel yàlla noonu nit mën na ne ah waaw xanaa kon foofu tolloo la fa yàlla ak jaam bi ak jaam te ñu ne da ngaa war a ragal yàlla moo ragaleewul kenn da ngaa yàlla noo bëggeewul kenn li ngay defal yàlla waruloo koo yemale kenn fii yent bi sallallahu alayhi yàlla comme ni ngay rusee kenn ci sa waa mooy misaal ci balaaga du charte du caagee ni yem ci bépp anam misaal du caagee ne yem la ngay misaal ak la nga koy misaalee yem ci bépp anam mu ne waa ji su comme gaynde mën naa nekk tagg du dëgg mën naa nekk tagg waaye boo ne ak ak ñaaw kanam gi comme kanam gaynde ngeen jotee ne dafa soxor comme gaynde ngeen jotee amul xel ngeen jotee ñu ne diw comme gaynde mu doon tagg ba yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam taggee ab jaamu yàlla asadullahi jaynab yàlla waaw wax dëgg ku ne xam na ne benn parti la boo xam ne rek moom la jukki cëllalee nurale ko kii mais du lépp du geen ga ñàkk sol tubéy ga du lekk lu ñoroon la du leneen ak leneen nekk bàyyi noonu aywa fii noonu du ubudiya du rus bi ngay rus kële rusu ubudiya déedéet kële mbindeef la mooy ñun ñëpp xam nañ ne kii sa diggante mbindeef kii nga xam ne defuloo bàkkaar bi ci kanamam sañuloo ko rus nga koo def te bàkkaar bi rus nga koo def fu kii nekkul te boobu yàlla mu ngi fa mu ngi lay gis du dëgg tekkiwul ne ci wàllu ubudiya da nga ko yemaleeg yàlla wala boobu moom nga gën a féetalee mu méritoo loolu ko yàlla déedéet boobu nag mooy loolu nga xam ni mooy rus googu di am sa digganteeg moom di tabii nga xam ne bu doon moom nga rus yàlla nga perte di bi ci anam bële bu doon moom nga rus yàlla nga perte bi ngay rus yàlla boo ko rusoon kii nga perte ndax rus koo xam ni xam nga ne yorul sa wërsëg yorul sa dund yorul sa dee ragaloo mu mbugal ragaloo mu dugal la safara ragaloo mu xañ la dara boobu du du du jaamu du boobu ngay defal yàlla du dëgg boo rusoon yàlla it te yaakaaroo ci moom dara ragaloo ci moom dara booba loolu bu nekk njaamu hmm? loolu bu nekk njaamu njaamu bu mu mën a doon balaa moo nekk njaamu mu ànd ak ñaar yii kamaalu mahabba fii kamaali dulli wal xuduwa boobu lay nekk njaamu mbëggeel lal ko ak nangu toroxlu boobu lay nekk njaamu mbëggeel ak nangu ak toroxlu moo tax nit di nga ko sax ba defal ko loo xam ne sa xol nanguwu ko toroxlu loo ko sa xol nanguwu mais yàlla nag balaa basam di nekk njaamu mu koy nangu muy mu ànd ak loolu le aywa loolu mooy kon ne zaahiru li nga def sa diggante kële moom lañ la wax ne defal maanaam ruseel yàlla nu mel noonu baatin ba nag mooy ca biir yéene ga ak màggal ga ak toroxlul ga ak mbëggeel ga ak ragal ga kooku mooy tax mu nekk ay ibaada ñu bàyyi xel loolu kon zaahir bi ñun ñëpp xam ne bu doon bàkkaar bi ma sañta def ci kanamu kii rek du ko def ci kanamu yàlla kon samay bàkkaar néew du rek ndax kii mën naa dund ak man ay at du gis sama bàkkaar loolu mooy baaxee bi li ca biir nag na nekk bële ngay defal yàlla nekk ubudiyatan lillah bii nag na nekk loolu mooy lu naturel rek mooy kersa bi nga xam ne jikko la rek kon na comme ni ngay rusee kenn ci ñi baax ci sa waa ki bu ko defee ay ñaawteefam dana néew te loolu muraqaba moom moo koy indi muraqaba nag moo lay dem ba yóbbu la ci martabatul ihsaan mooy di jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis nga xam ne boo gisul moom mi ngi lay gis ndax ki nga rus loo ko rus rus rus bu soree gisu la rus ga tëgg waaye booy koy boo lay gisee boobu nga la rus ki di teew yàlla nag boo koy jaamu mel ni mi ngi lay yaa ngi koy gis xam ne soo ko gisul mi ngi lay gis ci la sa rus yàlla subhanahu wa taala di mën a matee an Umar anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qala iyakum waljuluusa fi turuqat fi suudat wa fi riwayatin fi turuq fa in kuntum la budda faa'ilin fa a'tu at-tariqa haqqahu qila wa ma haqquhu qala ghaddu al-basari wa raddu as-salami wa irshadu ad-daali jëleen ci Omar radiyallahu anhu mu ne yonent Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyaakum wal julus fi suudaat moytu leen toogaayu mbedd muy toogaayu yoon yi ci benn riwaaya moytu leen toogaayu mbedd moytu leen toogaayu yoon yi ñu ko mu ne bu fekkee ne mënu leen koo ñàkk def ci benn riwaaya dañ ko ne yow mi yàlla yónni maa lanaa min daalika budd mënuñu koo ñàkk def yow mi yàlla yónni mënuñu koo ñàkk a def di waxtaan mu ne kon nag na ngeen jox fa aqu tariqa xaqahu na ngeen jox yoon wi àqam ñu ne ko waaw luy àq yoon wi xaala rabbul basar mu ne sajj bët mooy sa bët na ko sajj sa bët na nga sajj ndax yoon wi moom loo da koo bokk ak nit ñi soo yi muy melo yi nga xam ni ñooy ànd ak fitna dala fay rombe mu nekk ku ca moytu yàlla ca na muy génne muy solo ak ku ca moytuwul yàlla ñooñu ñëpp dañuy romb ci yoon yi ñooñu ñëpp dañuy romb ci yoon yi su ko defee nanga nga sajj sa bët te fa la gën a jëfee rawatina li la xasa romb rawatina li la xasa romb boo dul teewlu xadis bi di ko sóoraale rek boo moytuwul toog ci mbedd yàqal la sa xol mbaa nga góobee fa ay bàkkaar rawatina li la xasaroon ki dafay bàyyi xel ne maa ngi toog ci yoon yoon bi ma toog am na lu ma fi sant am na lu ma fi tere naa ci jéem dara boo jéemee rek yàlla dimbale nee na waradu salaam ak fay nuyoo bañ a toog waxtaan weeg grand place weeg bay bañ a fajo yoon wa irsaadu daal naka noonu bañ a ñàkk yitti ba doo tegtal kuréel nitu taax fu la gën a nekk taax rek li ci bari moom ñoo gën a ñàkk yitte bi boo réeree ci kaw bi li ngi gis sax léeg-léeg ko takk sareetam jiitu la di la wan yoon yi ba nga jàll mbaa mu génn toolam topp la topp la di la ko wan ba nga jàll waaye taax yi moom day indil nit ñàkk yitte ndax programme am àdduna yu bari gis naa fii ci Sicap di laajte noddkat masjidu sunna fële ma ñëw ba buntu këram fekk ay nit yu toog ci taatu benn palanteer mu leen diw laay laajte ngay waxtaan foog ñu ma wuyu sax diw laay ñu ne xamuñu mu ne maa ngi nii moom mu ngi ci parenteeru saalam lañu lañu wéeru toog di waxtaan moom fekk dégg dégg na ma koy laaj maa ngi nii ah xam nga loolu bokkul ak lii ñu ñu sant boo nekkee toog ci yoon ndeel tegtal kuréel li wuuteeg tegtal kuréel nag mooy ñàkk yitte ba xamuma ko wala taluma ko bàyyi dem sa yoon ba ca gën a bon nag mooy nga sànq ko kooku boom rëbbum yàlla lay waral nga tey ko sànq ko nga ko jaaral ne leen fekk da nga ci jublu rek fooye ko réeral ko kooku moom musiba la an abda ibn hazmin عن عبدة بن عن عبدة بن حزم قال تفاخر أهل الإبل وأهل وأصحاب الشاة fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bu'itha Muusa alayhi salaam wa huwa raa'i ganam wa bu'itha Daawuudu alayhi salaam wa huwa raa'i ganam wa bu'ithtu ana wa ana raa'i ganamin bi ajyaad jël nañ ci Abda ibn Hazm mu ne sàmmkati giléem yi borom giléem yi ak borom gàtt yi dañu doon puukarante ñii naan ñoo féete kaw ñee naan ñoo féete kaw wala ñoo gën le ñee naan ñoo gën le nee na yonent Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne leen Moussa day da dañu koy yónni boobu moom ma ngay sàmm ay gàtt boobu ay gàtt ma nga doon sàmm ca Madyan bu mu fay jóge jëlaale fa dara ci ay gàtt yoon mu nga doon yóbbaale ay gàtt nee na Daawud tamit noonu la mu daan nekk di tëgg forgeron terewu ko mu daan sàmm nee na man mii bañ may yónni ma nit dama daan sàmm ay gàtt gàtt boo ko déggee mooy xar ak bëy gàtt boo ko déggee ranam mooy xar ak bëy bi ajiyaat ci boor ba ñu wax ajiyaat ci xaram génnul xaramu màkk bi sorewul lool jumaa ji boo ci nekk yaa ci xaram ab quartier la léegi mais dafa laa daan sàmmee ah kon loolu day wane ne boroom gàtt yi gañe nañu boroom gàtt yi gañe nañu borom giléem yi gàtt dafa du di lu barkeel yu barkeel yi dañ ko négliger si suñu jamono ji léegi jamono yi vitamine la ñu toll ak am na réseau amul réseau am na crédit ak amul crédit foofu la ñu toll mais barke dañ ko commencé négliger waaye luy war a li nit di wut la am na ci loo xam ne nag tubaab yi dañuy dem di gën a découvrir ay élément ay ferñeent yi ferñeentam mais duñu egg mukk nag ci ne la lii barke la la daj barke bi mais dinañ ci jëm lu mel ni huile d'olive recherche yi ñu ci def fi ñu ci toll léegi bari na te yonent bi waxoon na bal alquran wax na tuuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin du dañ ba ilaa bu diin dañ ko daan wax dana ko lekk di ko diwoo ci garab bu barkeel la jóge ah. waaye am na ci yoo xam ne sax tubaab mën na koo séexlu waaw ah, am na ci yoo xam ne tubaab sax mën na koo séexlu te barkee nga ci bokk na ci fa xar yi di goor géttu xar yi xar yi fu ñuy goor seen gétt yonent bi daan wax da leen fa julli barkee fa nekk waaye bokk na ca ay ñandax itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax dee leen leen raay di fomp seen ñandax lu barkeel hmm? di fomp lu barkeel la te gaa yi seetaguñu ko waaye buñ ko seetee gisuñu waaye daal feebar yi jëm ci wàllu nokki rawatina asma boroom bokk na ci li ko gën bari lu jëriñ fanaan ci géttu xar wax ma nag nga dem dugg ci néeg xar yi lifin waaye ñi nga xam ne dañuy jaay xar nekk ci daral di jaay ay xar ak bëy di fanaan foofu dina jafe mu dal bu leen dalee bu ñu amee feebar ku ñuy waxtaan dama koy tudd lii ne ma yow léppoon agsi nga tudd nga sama garab man asma bu bon laa yor waaye musuma nekk ci gétt gi fii ma fi fanaan ba yëg ko dama defoon sax plein bi la déedéet plein air baaxul ci asma yenn plein baaxul ci asma waaye foofu muy tëdd la kon gàtt lu barkeel la jar na di bàyyi ci kër yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na sax ndaw sax ne ko wutal gàtt ndax moom ci rabi àjjana yi la bokk mooy xar ak bëy waaye béyum Ndakaaru nag jar naa moytu moom bëggul yeew te boo ko yee këpp cin rek ak lekk ceebu jàmbur yi lay def an Suwayd ibn Amir al Ansaari marfuan bullu arhamakum walaw bisalaam jëlee nañ ci Suwayd ibn Amir ma bokkoon ca ansaar ya mu ne yonent Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngeen tooyal seen mbokk même bu doon ak nuyoo seen mbokk dee leen ko tooyal moo leen ko raxtaxal di ko tooyal même bu doon ci nuyoo rek du wut ne ki am alal rek di fa yóbbu di joxe moo mën a tooyal mbokk wala boog ki fa mën a àgg rek déedéet ba ci nuyoo te nuyoo gën naa yomb tey damaa woote woon di nuyoo rek tey la gën a yomb ka nekk fa gën a sori mën ngaa toog fii Ndakaar nga nuyu ndax boo nee ne man balaa maa jokk rek ku ci ne ma jël sama tànk egg fa te amuloo boobu jot wala amuloo boobu yitti da ngay def li sa jot ak sa yitte fi mu tollool nga jaamu ci yàlla subhanahu wa taala nga bañ a perte lépp nee eh, na kon na ngeen tooyal seenu mbokk même bu doon nuyoo an abi hurayrata qala suila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudxilu nnaasa aljanna fa qala taqwa allahi wa xusnu alxuluq wa aktharu ma yudxilu nnaasa annaar qaala al fam wal fard yeneen ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yéen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa nañu ko ana lan moo ëpp luy dugal nit ñi àjjana mu ne taqwallahi wa husnul xuluq moytu yàlla taqwallahi mooy moytu yàlla mooy ay digalam ak i teram nga di góorgóorlu ci def ci ndigal yi loo mën tere yi nga bàyyi lépp tere yi nga bàyyi loolu mooy taqwallahi sa digganteeg moom wa xasnul xuluq sa digganteeg jaam yi moo tax ma ne foofu ñaar yooyu yëpp lu nu yàlla woo ñaar yooyu boo leen boolee mooy li ëpp liy dugal nit àjjana li ëpp nag liy dugal nit safara mu ne gémmiñ ak pay gémmiñ ak pay ak sexe mooy làmmiñ bi làmmiñ bi ak pay bi ñaar yooyu ñoo ëpp lu muy liggéeyal nit safara làmmiñ bi am na danger ci diggante ñaar de wax bu la suñu borom wax loowul wax ci yàlla loo xamut ci bàkkaar yu gën a mag yi la bokk am nañu ne sax moo gën a mag shirk ndax suñu borom bi muy toftale bàkkaar yi di tudd ba mujjee ba gën a bon mu ne wa an taqulu ala allahi ma la taalamun al imam ibnul qayim rahimahullahu taala nee na mooy aslu shirk sax mooy aslu shirk su ko defee boobu benn la sa diggante ak sa borom yu ci des nag xam nañu ko mooy di jëw a di wax lu dul dëgg ak di yàq ay diggante ak di xutba ci fitna xutabaul fitna dañ leen tuddee ci ab xadiis mooy di wax ay kàddu ci fitna yooyu yëpp baaxul day tax gémmiñ jëmale boroomam safara wal faraj muy sa digganteeg njabootu jàmbur bi ndax moom du tooñ buy jëm tooñ la buy jëm ci diggante nit ñi ñoom seen bopp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa waa misaal ba mu ko nee man de damaa bëgg nga autoriser ma njaal man ta'dana lii fi zina nga autoriser ma njaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax bëggal nga ko sa doom bu jigéen mu ne déedéet ndax bëggal nga ko sa sœur mu ne déedéet ndax wan ko sa tante mu ne déedéet ndax bëggal nga ko sa jabar mu ne déedéet ndax bëggal nga ko sa yaay mu ne xat boobu ku ma fekk dama koy rey mu ne ndax nag mën ngaa dem ci ku dul doomu jàmbur du seeru jàmbur du tantay jàmbur du bàjjinu jàmbur du jabaru jàmbur du yaayu jàmbur daal di fëgg dënn bi ñaanal ko yàlla mu génn ci moom seytaane boobu waa ji nee na falaa bëgg xalaatee njaalo fa wéree ci feebar bëgg njaalo bi nekkoon ci biir xol su ko defee kon moom tooñ la yàq la ci kaw suus sa digganteeg nit ñi ndax ku ko xool sa bopp li ngay njaboote ni nga leen di sàmmee dëgg nga war koo moytu ci njabootu jamono kon moytu yàlla bi taqwallahi ak rafet jikko moo ëpp liy dugal nit àjjana gémmiñ ak pay moo ëpp liy dugal nit safara عن فضالة بن عبيد مرفوعا ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم والثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة wa rajulun shakka fi amrillah wal qanuutu min rahmatillah jël nañ ci Fudaalat ibnu Ubayd mu ne ci albi salaasam nee na ñetti ñii de bu leen laajte ñetti ñii bu leen laajte bu laajte seen mbir dafa mel ni seen mbir leer na ci biir torox tànge nee na benn waay boo xam ne dafa tàqali koog mbooloo mi waay boo xam ne dafa tàqali koog ak mbooloo mi wa asa imaamahu mooy njiitam wa maata asiyan daal dee ci mooy boobu lu dangereux tàqali ko mbooloo bu ñu ko ñaari ci bu baax tàqali ko mbooloo mi bu ñu ñaari mooy tàqali ko mboolem jullit yi mooy tàqali kooku mboolem jullit yi mooy murtad boobu du mbooloo boo xam ne ñoo ne ah mooy ñooñu mbokkoo ci yàlla di daje masjid Kastoor wala di daje fee wala ñu tuddoo lii wala ñu def nii wala ñu mel nii déedéet mboolem jullit yi kay naan sàngara kii jullit ca la bokk ca mbooloo mi la bokk ñaareel bi mooy tàqali mbooloo mi am amir njiitu jullit yi ne fi yow nga génn topp génn mbooloo dëgg a ber sa mbooloo wala nga ne man bokkuma ci topp ma ñaar noonu la ñuy wax mu faraqatul jamaa mbooloom jullit ni nag comme dafa am asl mbooloo jullit dafa am cosaan bu dëkk am na mbooloo mu fi njëkk boobu ñun juddoo guñu ñu jur juddoo guñu am na mbooloo mu fi njëkk ñoo ñooy référence yi bu dëgg ñoo ñooy référence yi mais yàlla xam na ni ñoom duñ ci yem mbir mi du yem ci noonu dañuy dem di gën a bari di gën a wuute ak lay cosaan wuute yooyu nag daf ci am bu lay génnee ci biti am boo xam ne ba léegi yaa ngi ci biir mbooloo mi mais mbooloo mi dafa am ñu ci gën a yey nañu bàyyi xel te bokk na ci pas-pasu mbooloo moomu ak seen lañu àndee mooy xam gën a yées ki lañu bokk ci mbooloo mi lañu bokk bokk na ca la mbooloo ma nekkee woon ku bëgg a des ci mbooloo mi nekk ci xam ne ñii yées ci mbooloo mi ñoom ci ñu ngi ci biir mbooloo waaye dañ daan wax ne na ko mu wuuteeg mbooloo mi ci masala sàngam diw mii de wuute naag mbooloo mi ci masala sàngam diw wuute naag mbooloo mi ci buntu sàngam ñu di leen ñaan ñi di moytuloo nit ñi la ñu ak ñëw wuuteeg mbooloo mi ci fi yooyu ñooñu tamit seen wuute dafa am dégg ay degré bi ci gën a yées bi ci gën a yées mooy ñi nga xam ne dañoo gis ne lii nu nekk moo gën la mbooloo mu nekkoon yàlla moo bàyyi ba tey mu ñu ko wala mu indil ñu ko di ilmul kalaam ak falsafa ak yu demee noonu ñoo ci gën a yées ñi gën a jege yoo mooy ñi nga xam ne ñun ñëpp dañoo màmm ne foofu la ñii ne nag foofa nii la fa ñii ne du fa nii nee la fa te ñoom ñëpp ñu ne foofa la ñu wute ñaar yoon noonu la demee lii firndeel bu njëkk bi ne wuuteeg jamaa bi mooy génn ci lislaam mooy li leen ci àl bi sallallahu alayhi wa wax ne laa taxillu dama mri'in muslimin illa bi ihda thalath at li diinihi al lil jamaa kenn ki ndax dafa ne bi ihdaa talaat wa sayyibu zaani wa nafsu bi nafs bu doon al mufaariqu lil jamaa keneen la ku dul attaariku li diinihi kon illaa li arbaa lay wax kon ñeent lay doon laa yaxillu damu mriin muslimin illa bi ihdaa talaat attaariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa yaani huwa al mufaariqu lil jamaa ki bàyyi diineem tàqale koog mbooloom mbooloom jullit mbooloom jullit nag wax nañ leen. waxaat nañu mosuñoo yem dañuy gënante waaye dinañ tuddee tamit ki tàqalikoog mbooloo mi ki nga xam dafa génn topp amirul muminin dem beddeeku ci kooku tamit xadis bii moom lay wax waa joo xam dafa tàqalikoog mbooloo mi wa asa imaamahu mooy imaamam wa mata asiyan deet benn mooy yàlla subhanahu wa taala am na ci ay ndigalam yoo xam dalaa tënk ci ay doomi aadama nga war ko faa jaamu bul ne dama koy dindi toppal ki leen digaloon lan lañu tëdd wa amatun aw abdun abaqa fa maat wala jaam bu góor wala bu jigéen boo xam ne dafa rëcc abaqal abdu mooy rëcc na ah ba pare dee wa yàlla am na ci ay digalam ci farataam yoo xam ne dala koo tënk ci ab jaam ci jaamam yi bul ne déedéet man yàlla dong moom moom gis nga kii nee na bul laaj mbiram te nee na mooy koo xam dana koo moom alalu jàmbur la mu rëcc mu dee hmm. xoolal ñetteel bi mu ne wa mraatun xaaba anha zawjuha ba léegi yàlla daf koo tënk moom ndaw si ci borom këram gannaaw ba nga xam ne am na borom këram nee na jigéen boo xam ne boroom këram dafa absenté waaye nag fegal na ko mbiri àddunaam bàyyi koog dépense bu doy dëkkal bàyyi koog dépense fa tabarraja ko mu daal di génn génnuk ceddo ci ginnaawam mu génn génnuk ceddo ci ginnaawam mooy muy taxawal di tuwaletu di génn di wan ñeneen taaram loolu mooy tabarrus mën na egg ci njaalo mën na ci bañ a egg loolu mooy tabarrus waaye nag gis ngeen lii mu ci wax lu am solo mooy bàkkaar dina doon bàkkaar bàkkaar doon bàkkaar ñuy même ñu ëppante ndax balaa moo egg fii mu ne bul laaj mbiram ndax fu mu sori ci alkunde fekk borom këram mën ko bàyyi foofu dépense ça ne bu fekkee ne bàyyilu ko dépense am da ko négligé sànni ko ci àll bi bàyyi ko mu tabarrus day am bakkaar de mais bokkul ci ñett ñi ndax ñetti ñi dañoo wax ne nii la demee yow mënoo cee dugal keneen nii la demee kafaaha munata dunia fegal na ko la nga xam ne moom la mu war mu jóg kooku bakkaaram dafa gën a bon du dëgg mais ki nga xam ni nag moom mu ngay taxawal même bu fekkee ne borom këram bàyyilu ko dara da koo sànni négligé ko day am bakkaar mais kii nag keneen la moo gën rëy mu ne ñett ñi bu leen laajte waa joo xam ne dafa xëccoog yàlla mbalaanam te mbalaanu yàlla nee na mooy ak rëy moom dong ko moom moo koy mbalaanu nee na mu xëccoog moom Euh, euh, sërëm al izar mooy sër te nee na sërub yàlla mooy ak tër moom donc moom moo ko war a wodda moom moom yàlla subhanahu wa taala mooy tër nit war tëj tër daf war a nangu nit day doon ku ay mbokkim jullitam ay moromi nitam mën ca moom dara waaye kii moom jarul ñaan jarul waxtaanal jarul nangam du may kenn léeg-léeg nga dégg sax ku nit bu malaaka yi wàcc woon gis naa ko dégg kuñ doon defar digganteem ak soxna wallahi mu wax wax ju ñaaw bu ñu leen yónnee woon bëgguma sax jaar ci la mu wax baalu ma ko du ma dem bu baax yàlla moomum loolu ku dul yàlla waroo jéem jéem lu tëdd doo ko mën sax a ngay am bàkkaar rek nee na ak waa joo xam ne moom dafa sikki sàkka ci mbir yàlla muy nekkam ak bindam ak asamaan ak suuf ak rububiya ak li ko waral ci al ubudiya ak li nga xam ne mooy ay turam ak i melokaanam moomu di ci sikki sàkk wal xanuut min rahmatillah ak ki nga xam ne dafa découragé ci yërmande yàlla nee nañ bu leen laajte ndax sori gi ñu sori ci alxuraan wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala